مبعوثا من الشيخ محمد المنتقى مكي الخليفة العام للمريدية وحاملا منه حفظه الله أسماء آيات من الاعتبار والتنويه وتقدير موجهة إلى ابن أخيه سليل العلم والصلاح الأستاذ الفقيه الشيخ محمد الهادي نصر شاكرا له على جهوده العظيمة النافعة في الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة من خلال نشر العلم الشرعي والتدريب على السلوك السوي وفقا للثوابت الدينية الثقافية التي خلفها علينا سلفنا الصالح رضي الله عنهم بعد أن هاجروا وجاهدوا من أجلها ودافعوا عنها بالنفس والنفيس مما مكننا نحن أهل السنغال من العيش بالسلام في هذا الجو الوئامي المتناغم تحت سقف الوحدة والأخوة على الرغم من الأعراق المتعددة ومن المشارب المتنوعة هذا وإن الشيخ محمد المنتقى ليرى في صنيعك هذا يا شيخ الهادي تجسيدا لدعاء من الجد صالح شيخنا أحمد الخديم رضي الله عنه حين تضرع إلى الله تعالى داعيا ذرية طيبة تجدد نهج النبي المصطفى تجتهد كما يوجه إليه سماحته الشكر كله على مساعيك الحميده في توثيق أواصر الأخوة والصداقة التي كانت بين الأجداد فدم خلف خير لخير سلف يا ابن أخينا الهادي محفوفا بالعنا بعناية الله وحمايته خادما للملة وموجها للأمة مرضيا من الله ورسوله ومن الأجداد الذين وصل إلينا بواسطتهم هذا الدين وبقي فينا بفضلهم واضحا صحيحا فتغمدهم الله تعالى برحمته وأسبل عليه شآبب مرضاته وجعلنا من الدرب سائرين وعلى الخطى ماضين برعاية الله وكلاءته آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sëriñ haadi yow ak bokk yu tedd yi nga xam ne ñoo fi teew ñi ngi ñëw jóge ci sa waajur a cheikh mohamadul muntaqa alxalifa al aam lil muridiya mu yabal ñu fi jox ñu ab yoneen muy ab nuyoo bu tedd bu sell mu wax ne bu nu ñëwee nañ ko teg ci sa loxo nga tegal ko ko ci loxob njabootuk ki nga xam ne moom la Serigne Mbacke Bousso waxoon ne man li shariati wal manabi wal madarisi wal manabiri wal maarifi yuaddu wal aqlaamu aw man li xalli al mushkilaati ida wanat afkaaru kulli mudaqiqin mifhaami maa laysu xillin misla abdillahi fi yowmi alxurubi albaasili almiqdaami ñi ngi lay jox nuyo boobu nga teg ko ci loxob ki nga xam ne moom la sa maam cheikh mohamad xalifa waxoon ne qutbu zamani xalifatun an cheikhihi bi ulumihi wa bi suhdihi wa safaa'i muxyi tariqati walxaqiqati ilmuhu بعد ndiraasi معالم الكرماء عبد الإله مؤملا لرضائه معطي الرجاء وكاشف الضراء سعدت به الأجداد والآباء والأبناء والأحباب كالقرباء نيو بوب nga tekko ci njabot ki nga xamne mom la cheikh al islam al haji ibrahim Niass waxone ne man kal khalifati allazi taallama minhu wa minhu qad hawa taqadduma ay najlihi al alkabiri bahru ilmi wa fa faaxa fi lsigari kullal qawmi Cheikh Mouhamadul Muntaxa def noo yónni ñu ñëw ngir fedd li si gi nga xam ne moo doxoon ci diggante koo kii ñu doon misaal te mooy alxaji Abdullahi Ñas ak sunu maam boroom saam muy sëriñ Maam Mor Jaara di magi sëriñ bi ak sëriñ bi ci boppam ba tax sëriñ Mbàkke Buso defoon ci moom marsiya bu neex boobu bi mu laqoo moom ak mbokkam ma الشيخ الحاج مالك سي Sy ñu laqoondoo ci menn at sëriñ Mbàkke مارسي marché yàlla leen marché nga xamne min ko tambule ci shamsun wa shamsun ama shamsin ghabata fa bakkal wara bi takaadufil adlaami sëriñ bi ne kon mi ngi fedd li kolere gogi ci yow diko jaare nak ci lol yi nga xamne fofu la soso won muy njabotuk alhaji abdullah Ñas ak mbollem ñi ci aju ñe nek ci lew na muy xalifa ba Cheikh Ahmed Tidiane ak ka nekk ca Madina Cheikh Ibrahim muy ba tey Cheikh Ahmed Tidiane Niass ak mboolem famille njabootu ku baax ku tedd goog yi sëriñ bi nag daf noo wax ne nañ ñëw ci jataay bii ndax néew na fu mu yebal délégation bu mel nii waaye keroog bi nga ñëwee Touba ak na nga ñëwee ak na nga waxeek moom daf koo yëg bu baax a baax waxal na la ko boppam bi nga daatan génn ca kër ga la ma woo ne ma daalal di ñëw léegi fekk boobu maa ngi fii ci ndakaaru bi ma ñëwee mu yëkkati téere yi nga xam ne moom nga ko joxoon jox ma ne ma bu ma ko may mu jot gi mayoon dama koy jàng ba mu jeex ndax noonu laa baaxoo ab téere bu tàbbee ci sama loxo bala maa am jàmm dama ko yër wax ma ne bi ma sàkkoo xam-xam moom Cheikh nil Mountakha ba sunu borom may ko ca lam ko ca may nee na am naa juróom-ñetti at yoo xam ne yér rek lay liggéey yër mooy liir nee na booba téere moom defe naa ne fu ma ko gis rek dama ko war a jàng jot gee ko ma ko mayatul waaye kon noonu lay lay wéyal mu jox ma ndigal nag ne ma téere yii ma Muhammadul Haadi indil na ko jàng lépp te boo ñëw boo noppee ñëw waxtaan ceeg man tàmbali naa ko nag démb la ma ko jox waaye tàmbali naa ko waaye bu bëggee xam-xam moom Cheikh Muhammadul Muntaxa du bett kenn ndax maamam ju tedd gi Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu moo كونوا معا في العلم راغبين لوجه من به يقيم الدين كون كوك بو بغي خام خام داكو ورا بغ امنا يتام بروم خام خام بو تاغون شيخ محمد البصير وخني كلف الحياه على شيء يغصه ينقصه فقد الهمام بشير العلم والدين بشير العلم والدين مو شيخ محمد البشير ميغا خامني موكو ميني wax na ne bi mu sàkku xam-xam Cheikh Mahamadul Bachir daane ñëw néegam di xool téere yi muy jàng loola ngir soññ ko ak xemmeem loo ko xam-xam loolu moo tax bi nga ñëwee nag wax ak moom ci anam gi mu wax ne nañu ñëw ànd ak délégation bii nga xam ne lim nañu ko léegi muy Serigne Mbacke Abdourahmane nga xam ne moom it ku ne xam na taxawaayam ci xam-xam ku ne xam-xam na taxawaayam ci jàng ak jàngale ndax moom da ngeen niroo métier ni ngay liggéeye yow mii noonu lay liggéeyee. ànd ak imaam Cheikh Awa Balla Gueye mi ngeen xam moom itam nga xam ne loolu ci la nekk nu xam ko ci bu baax a baax ak mboolem ñi nga xam ne sëriñ bi boole nañu ak moom. sëriñ bi ne kon mi ngi lay sant nag bu baax a ci taxawaay bi nga xam ne koy taxaw ci li nga xam ne sunu ndono mooy sunu warteef muy jàng ak jàngale di tasaare xam-xam waaye nag bil xikmati wal mawizati al xasana sëriñ bi nee na mi ngi la ci soññi di ñaan sunu borom dëgëral la ci. te nga gën koo jëmee kanam ndax loolu mooy sàmm li nga xam ne mooy ndonal sunu mag ñu baax ñi ndona loolu nga xam ne moo nu sàmmal Sénégal ba mu agsi fii mu agsi ni ñu wuutee ci ay làkk wuute ci ay naanukaay waaye ñuy dund ci jàmm ak akuk bennoo akuk déggoo sëriñ bi nee na loolu lu nu war a yaatal la lu ñu war a tasaare la lu ñu war a xam la jataay bii nag bi mu fi toogee ni ko sëriñ Maodo ni ko sëriñ eh, Xasan waxe léegi man ci sama wàllu bopp gannaaw bu ma jottalee nuyoo sëriñ bi ci kàddoom ak ci cantam danaa fàttaliku sunu xarit di sunu soppe di nit ku baax muy Cheikh mohammed al amin Niass nga xam ne diggam ak mboolem këri diine yi kenn du ko nattable digganteem ak Sénégal ñëpp xam nañ ko ndax Sidi Lamine Sidi Lamine yu bari la woon ñun Sidi Lamine cheikhul islam lañ xam Sidi Lamine borom xam-xam lañ xam Sidi Lamine doomi mohammedul Khalifa lañ xam. bari na ay facettes multidimensionnelles la woon waaye nun wàllu diine gi moo nu boole woon ak moom mosunoo wax ak moom politique mosunoo wax ak moom leneen waaye bu ñu masaan toog ci wàllu diine ci wàllu xam-xam dañuy xam ne suñu mbokk lañ nekkal kon kooku ci jataay bii ñu ngi koy fàttaliku di ñaan suñu borom dolli yërmandeem ci moom di ñaan suñu borom teg loxo ci njabootam di feddali kóllëre googee ci yéen ñi nga xam ne yéen a nekkoon ak moom Oustaz Hassane wax na ko léegi mën nañoo wax ne at mu mujj mi mu nekk ak noonu ñaari xeexoom yi mu gën a màggale njabootu Serigne Touba lako jaglel ben ba moy bimi siwal tere yu am solo yi nga xamne ne Cheikh Mouhamadul Khalifa moko bind mu dara jale ko Cheikh Sidil Mokhtar bobu man mi le Cheikh Sidil Mokhtar wo yónni ma ca bolema ak njabootam gep Serigne Moustapha mi nga xam ne mooy ci njabootam ak Serigne bara abdul Ahad ak Serigne Cheikh Coro ak mbolam keur ga daf neewon bu fi kenn dess ni ñëw fekke ci jotaay bobu woné ci mbektem woné ci cofeelam ba ca top muy bi muy def. tafsirul quraan bi jagale ma ko ngir jubli ci soññ ma ak dooleel ndaw ñi nga xam ne dañuy jéem a teg seen tànk fa ko mag ñi tegoon fas yéene dundal ndonal mag ñi loola duñu ko fàtte mukk kon ñi ngi koy sant di ko ñaanal di feddali kóllëre googu ci sunu diggante ak moom di la wax yow it sëriñ aadi naka jekk yaa ak moom woon nekkatu fi waaye mi ngi fi kon na nga jéem a dollee wéyal liggéey bi te xam ne doo ci wéet ndax Cheikh Mouhamadul Muntaxa lam la wax dégg nga ko njaboot gi dégg nañ ko kon ñi ngi nuyu mbollem kilifa diine yi fi tok mbollem ñi nga xamne ne teew nañ ci jotaay bu tedd bi te kenn ku nekk mënoon a wax ci turu Cheikh mohammedul Muntaqa ndax wax nañ fi njabotuk sidil Hadji malik manon nañu jël kaddu ci turu l'islam bépp kon jël nañ ko ci turu Cheikh Mouhamadul Muntaqa njabootu lew nañu seen ñi wote waxuñu ko njabotu njabotu Madina Cheikh Ibrahim kontiyu njaasan la yéen mbollem ñi nga xamne ne ñoo fi teew ci turu diine ñom ñep kenn ku nekk mënoon nga jël kàddu ci tia tudu Cheikh Mouhamadul muntaha ndax non la ko bëgge kon daal loolu lañ jot li ci ay kàddu yu gàtt yu ñu bëggoon yeggale muy ak cantam ak soññeem ci yow ak ci mbooleem ndaw ñi nga xam ne ñi ngi jéem a jaar ci yoon woowu nga xam ne yow moom nga jaar waaye di li na kóllëre gi nga xam ne moo doxoon diggante kër alhaji Abdullahi ak kër Cheikhuna Alxadim radiyallahu anhu di ñaan sunu borom may ñu ñu fekk ko at yu bari te ànd ak jàmm ak salaam wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته موي كادو يو أم صلو وايتم موي كادو يو خمني وانيناني njobootu l'islam gi yépp ci biir sénégal benn la wane na ne démb bi fi nekkoon ci diggante